jàllee ci digg bi ku ne jël la moom ba tax na waa Pitu et jël nañ la moom ñoom ñoo leen di woo ci mbapat bu rëy mbapat bu mag fan lay doon ñu ne ca ñoojoor ah kañ lay doon ñu ne di 12 au 15 vingt 2024 foofee ca ñoojoor waaye li ci gën a doy waar mooy mise ba. waaw mise ba nag Souleymane ah Pitu et frère ñoo ngi tëgal ñaari nag ah, ak benn xar benn xar. plus 80000 francs. te te li ma gën a ñëw si attaques yi mooy nag yi boo leen gisee Souleymane. ay ngandi dofi nak nak ay yëkk li du ay nak ay yëkk la nagu yar la ay nagu yar la nagu élevage bu baax. nak nag yooyu moom xam naa ko ko jël mom bu la neex neexee jël mu nga ko jaay am ci ñetti nak kat nak sax mun nga ko di ngeen gis nak yi ci vidéo yi. vidéo bi waaw mais ci lool aussi mise bi ni ni lañ ko départager premier drapeau bi mu yëgaas. Mhm. tegal leen bëri euh, ben xat ak 10000 francs. lolu tabaski la. waaw boo ko jëlee moom mun nga. tabaski bu sa bop ñëwal. jarul ngay jënd xar. Hmm. xam ne ñëwal wut ci xaru tabaski. samp foofu. waaw deuxième drapeau bi muy poids léger. Hmm. ñu dëggal mbër yi benn nag ak vingt mille nag ak vingt mille nga di dofi nag nag surtout nag yi. Hmm, ay nag yu doy waar. Euh, poids bi muy troisième drapeau mu tëggal mbër yi benn nag ak cinquante mille benn nag plus cinquante mille. animation ba mbayang lum la. ak ki nga xam ne moom mooy baabu seen. kon tout droit ñoo joor mbokk amateurs yeeg mbër yi promoteurs yi. waa mbokk ñoojoor ah faya bu ninki mu ngi leen di woo ci bilee bés bës bi day neex day alaa daw noo non non instant du faya bu ninki faya bu hmm. absal faya bu absal <laughs> tout droit